ci li nga xamante ni moo tax euh, mbooloo mi daje fii muy euh, département Mbacké fédération bi yëpp coordonné nañ leen daje nañ ñu toog pour am lu ñu war a waxtaanee muy parti réew mi ak ñi mu àndal ak alliés yëpp euh, di wax ni département Mbacké décision yi ñu jël bi ñu toogee ba waxtaan mooy que nii ànd nañ ak président Idrissa Seck ci décision bi mu jël ci loxo bi ko président Macky Sall euh, tàllal pour ñu ànd bokk liggéey réew mi ndaxte kenn ku nekk xam na ni dëgg-dëgg jafe-jafe am na yu nga xam ni yu méttee métti la yoo xam ne àndul ak xeex ak xuloo ak xiiroo ak ŋaayoo surtout fi jamono toll muy Covid 19 bi. loolu jàll li ñu wër dëkk yi ñu wër yépp ñu gis problème yi fa nekk ca dara indiwu ko lu dul politique ñu jóge ci élection président Idrissa Seck am nu mu gisee am ñu nga xamante ni woo nañ ko waxtaan ak moom waxtaan ak président Macky Sall ni leen waxtaane leen réew mi ñu di ko waxtaanee depuis bi ñu jógee ci élection yi ba léegi dialogue national bi ñëw liñ ci tënkee jëlee ko ci mooy àndandoo liggéey pour le Sénégal loolu nag mu nekk décision bu nga xam ni décision bu diis la waaye nag président Idriss Seck réewam moo ko ko jaral parce que taal réew mi pour defar ko amul njariñ jot ci réew mi pour defar ko loolu mooy li am njariñ te loolu mooy gis-gisam ca loolu mooy li nga xamante nii moo ñu lëkkale ak moom loolu mooy li nga xamante ni moo waral jataay bii ñu fi daje euh, pour bañ a guddal foofu laa ci yam di sant nag ñi fi nekk ñépp di leen gërëm di indi nag ay waxu président Idrissa Seck président Idrissa Seck bi yëf yi amee oo na ma dem naa fa toog naa ak moom waxtaan nañu li mu ma njëkk a wax mooy lépp lu may def yéen responsable yi ak militants yi yéen laa ci xalaat mais du sama bopp su fekkoon sama bopp kese la kenn dootuma déggati ci politique waaye ay nit dañ may yaakaar jiital ma kon awma droit def erreur xamal na ma it ni ma décision bii mu jël def ko buñ doxee ab diir bu gàtt ci kanam ñëpp dinañ gis résultat yi nekkul ku nga xamante ni dafa tëb rek di di tàndatu pour def li mu def loolu ay waxam la yu ma wax. nee na it mi ngi sant département bi yépp bu sañoon mooy ñëwal boppam toog wax waaye jamono moo xat ca jàpp na ni ñi mu fi bàyyi am na ci ñoom yaakaar bu nga xam ni. fu kàddu munta egg mën nañ ko fa eggale loolu kàddu yu président la mi ngi sant ñépp ñu ko doon jàppale commencé ko ci nag sëriñ si ndax euh, ñun fii ñu nekk dañuy dox ci ndigal ca li ñu doon dox dañ ko àndoon nag ay siti sëriñ tubaay yu baree baree bari ñu bàyyi seen lépp ñëw di ñu jàppale cant gi ci ñooñu la ko commencé wàcc ci suuf ca bu santee suñu sëriñ si rek ñun suñu xol sedd na jërë ngeen jëf di leen sant di s'appelle Bokk Sénégal Bokk Sénégal waaw c'est important ah. si bon euh, comme ni nga ko waxee moo ma di la remercier bu baax a baax nga nekk suñu doyen bu nga xamante ni tamit euh, ñu rafetlu sa liggéey ci département bi comme ni ñu ko waxee tamit ci diggante président Idrissa ak président Macky Sall joxante loxo bi mooy ànd tabax Sénégal Sénégal bu nga xamante ni ñëpp ci gis seen bopp ñëpp a ci gis seen bopp bi mooy ba ca ka nga xamante ni xamul fu Dakar féete njariñ li fekk ko fa mu nekk ca loolu nag moom joxante loxo moo ko mën a maye mais pas euh, euh, xuloo wala kii wax na lii wala kiy waxul lii joxante loxo liggéey rek moo mën a maye loolu jërë ngeen jëf. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla nag di leeralaat rek comme ni ko sëñ Mouhamed waxee euh, Manel waxee ko noonu. dafa am lu ñu nosoon jamono yee ci ginnaaw nekkoon ci doon ci liggéey ci réew mi yàlla dogalit sëriñ bi suturaal nañu ba nu amoon ci ndam ci fii ñu nekk gannaaw boobaa ak léegi yàlla muy joxe it joxaat njiitu réew mi mu jiita réew mi waaye teewutit it nu doxal leen war a doxal rek ba jamono yegsi ba lii xew-xew ah ci biir xew-xew boobu it sant yàlla lañ koy mën a tuddewaat ndax jàpp naa ne réew mi xëccoo ko taxul nga jàpp ne violence moo ko war a taal te képp ku jug ne da ngaa war a defar yaakaar naa ne xel ak xalaat ak jotal moo la war a mën a tax a jóg kon rag sant nañ yàlla bu baax ñun ñu àndoon ak moom te it kenn ku ne ku ñuy tudd di tudd sëriñ bi defe naa ne lépp lu ñu lay dégg wala nga ñu la ci tudd luy jàmm lay doon ak luy defar ndax kat noo woon moom la ba àdduna bépp nangu ne moom la kon tey buñ ñu gisoon nu ànd ak moom tey mu woo ci fitna daañu am problème kon bu ñu yàlla dimbalee tey jii ñu dem bañ woo ko ci jàmm ak luy defar réew mi ak luy suqali réew mi ci kawam xel mu nangoo joxe loxoom nangoo sóobu ci biir liy defar réew mi ànd ko président de la république loolu noonu dañ koy rafetlu ndax ku ne xam na fi réew mi toll xam nañ fi réew mi yegg ci ay jafe-jafe xam na it fi nga xamante ni si moom fi la bëgg réew ma yegg kon bu président amee xalaatu xool li nga xam ne mooy social ak ni Sénégal soxlaa social actuellement nii ndax kenn ku ne ci yéen xam ngeen ne fi réew mi waxuma la li ñu traversé ci weer yi ñu weesu ak fitna ji ñu woon waaye actuellement nii fi réew mi toll ngay déggaat loo xam ne jàppoon nañ ne jeex na ci réew mi ay doomi réew mi di génn di jëlati gaal gi ngay dégg ñu naan ne kii faatu na ñu xam ci ñu bari te ñëpp ñu xam ne ñoo ñëpp du ñun ñu yaafus Euh, ñàkk a mën a am li ñu bëgg tey teguñu ko fenn fu du teg seen jë ngir am seen sutura ak teraanga ba tax lii di leen gaar su fekkente ne dem nañ ba na ay la yéwén nag yëf yaa ngi ëppi loxo ñu xalaat ne am na kàngam yi ne ci réew mi ci xam-xam si loo xam ne day yaxal am koom ak loo xam ne war naa mën a indi am koom ci réew mi ak loo xam ne dana mën a tax ba nit ñi gis seen bopp ci li fi da jot a des ak néew ñu xalaat ko ci ba jël ko indi ko ci réew mi mu nangoo joxe loxoom nangoo sóobu ci gouvernement bi loolu sant yàlla ñun lañ koy def amaa nag yee xew ak wax yi àdduna moom noonu la doxe kenn ku ne ak na ngay gisee ak na ngay doxee waaye daal yàlla nañu yàlla suturaal ba li nga xamante ni si moom xalaat nañ ne moo ko tax a dugg te ci loolu it lañ koy xaar muy suqali nit ñi ba ñëpp mën a ànd dal tam bañ a doon loo xam ne mbirum parti lay doon mu sax ci réew mi ba ñëpp gis ci seen bopp yàlla na ko yàlla suturaal ci loolee ba sëriñ bi mottaleel ko yéeneem ba li bëgg a def mu def ko ba mu kawee jortam ba bu ëllëgee leneen lu muy naal nit ñi man caa sawar sant nañ yàlla bu baaxit ndax gis nañ ni mu joxe sunu kilifa wàcc waay gis nañ ni mu ko joxe war ma ndax gis nañ ne mboolem lu ko mës a digal ma nga ca lu mu ko mës a tere it ba na ko kon tey jii bu yàlla dogalee mu nangoo joxe loxo am kilifa rek ma wóor réew mi nag dafa am lu fiy dox mooy da ngay nangoo am kilifa ak noo mën a toll ak foo mën a ne loolu lañ baaxoo xam mooy aaday Sénégal mooy culture réew mi te yaakaar naa ne moo sàmm réew mi barki Demba Ndiaye li xew ci yeneen réew yi dégg nañ ko naam élection am na fa waaye gis nga lam jur nit ña seen xel dalatut ña ñer ca pouvoir ba seen xel talagut dalu gouverner ña nga xam ne ñoom lañ gagné it fintu nii moom it ba léegi gëm nañ seen euh, bakkan mi ngi ci xottu nen te loolu lépp amul senegal te yaakaar nañ ne 2019 pression bi fi amoon ñu bari gëmoon nañ ne bu jàllee na man naa am loolu nag njiit muy doxe xel moo ko man a am waaye njiit luy doxee fitna wurta mën a dox ci sago ba réew mi di yegg fii ba ñuy xalaat ànd di ko liggéey kon ñu ngi leen di sant ñoom ñaar ñëpp di leen ci gërëm te di leen wax na leen askan waa ngi leen di xaar te it yaakaar nañ ci ñoom te yàlla leen yàlla mottalil seen yéene ba 2024 incha allah leneen looy xew doo ko xew wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu parce que euh, léegi euh, le responsable politique euh, Manel le secrétaire national Manel dafa wax léegi ci discours introductif bi mu defoon mu ne dañuy suggérer président sa Seck ak président Macky sàll coalition bi nga xam ne ñu ngi ko mettre sur pied ñu tuddee ko Benno Bokk Sénégal pour que doomi Sénégal yëpp góor ak jigéen man cee gis seen bopp loolu nag suñ koy wax rawatina nag ñi nga xam ne ñooy militant APR ñooy militant réew mi ñooy militant wu yeneen parti yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi sóobu ci liggéey defe naa ne loolu c'est un consensus à construire lu ñu war a dox la lu ñu war a taxaw la te xam naa ne responsable yi nekk Touba ak yi nekk Mbacké yi nekk ci réew mi en tout cas ñoom jël nañu seeni disposition pour que rataxal diggante bi ni ni ko Macky Sall ak Idrissa Seck def ko pour Sénégal mën a taxaw faire face à la recession fair face à la situation ba redresser réew waa réew mi responsable yi fi nekk yépp ñoom dinañu taxaw comme ni sa Seck taxawee rataxal diggante bi ak ñëpp ñi nga xam ne ay alliés lañu tey ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition bi tey pour que liggéey bi gën a rafet parce que liggéey bi sa Seck rek mënu koo liggéey Macky Sall rek mënu koo liggéey gouvernement bi yëpp mënu koo liggéey doomu Sénégal yëpp ñooy war a jug taxaw xam ne liggéey bi seen liggéey la réew mi suñu réew la ñun ñëpp ñoo mën a ànd euh, tabax ko. waaw en en perspective de 2024 xam nga le président Idrissa Seck est un homme politique qui ne pense pas aux échéances électorales prochaines. président sa Seck li nga xam ne moom lay pensé tout simplement mooy situation bi réew mi di nekk ak situation boobu moment booba nga xam ne fekk na ko ci lan la mën a def pour génne réew mi ci jafe-jafe yooyu foofu la ñu tolloogum li nga xam ne nag mooy ñëw ëllëg ak sibir parce que circonstance bu ñëw rek gis ngeen ne président sa sec dafay reconsidérer sa position ba mu jaral ko sax léeg-léeg li nga xam ne moom la ñu wax léegi tudde ko tudde ko wax waxeet man defe naa ne c'est que il s'est fait violence parce que bu solu président Idrissa Seck mooy le Sénégal d'abord su Sénégal soxla day fàtte boppam fii mu nekk Sénégal la soxla Sénégal dafa jóg pour ànd ak Sénégal dafa jóg pour liggéeyal Sénégal lii xew ëllëg nag euh, ñu ngi koy xaar mais nañu liggéey ba waa Sénégal xam ne en tout cas ànd bi am na njëriñ